ak euh, Gris Gris en fait euh, Ama laay posé question d'abord ndax gis naa ne combat bi fi mu commencé ba fi mu jeexee benn loxo rek laa gis muy xeexee xeexu la ñaar loxo. Mm. alors que Gris Bordeaux am na benn moment mu ngi xeex ak ñaari loxo. Mm. mais moment bi Gris Bordeaux xeexee ñaar loxo aussi yooyu yëpp ay coups loupés la. Mm. donc Ama li ñu koy laajee mooy def tax dafa travail spécialement. nan la war a xeexee Gris Bordeaux wala dafa ñëw naturellement loolu ci làmb ji. waaw kon lu ma la wax rek tey euh, ba ma demee INSEF maag sama mag su mel ne Balla Gaye tëju nañ tey am na action yu bëree bëri bëri yoo xam ne wax dëgg yàlla ba Serigne Fall bu ma yaakaar. moom moom ak yooyu parce que am na loo xam ne xaw ma ko woon si Gris Bordeaux aller retour bi moom mën naa jékki-jékki di bëreel moom rek ne ko par hasard rek ne Gris Bordeaux nii laa koy def après mu wan ma bu garaaw xaw ma ko woon. après moo tax aussi nag ñu jàng si ñu liggéey si bu baax a baax moom di ko ñaanal jàmm parce que mun naa la wax wax dëgg yàlla ba muy dugg INSEF am na nu ma meloon bu baax a baax suñu mbërëg euh, blessure ak yooyu yëpp waaye tout le temps mu ma woo di ma conseiller bu baax a baax dama dama bokk si làmb ñëwal blessure ak làmb xaraa gisoo man mii sama maa la gën a metti blessure trop te teewul maa ngi si comprendre Gris Bordeaux kon la ñu war a maanaam moom pied droit la remise lañ mën a kii remise lañ mën a gën a favoriser si bëri bi comprendre ma dem ma dem ma dem gën a neexal loxo bi rek di takk gant c'est tout le temps contact takk gant contact takk gant parce que xam naa ne comprendre ma parce que ñu bëri comprendre ñu ma parce que kon lu ma rek tey bëri bi mooy yombul parce que jàng nañ ko mën nañ ko tamit ay jullit nañ ñun ñëpp waru ñoo gis bëri dem bëri ji war a a gaañ nit wala di rayante nit ki parce que man loolu mosuma kaa gëm comprendre parce ay Sénégal te tamit ñoo mun a mayante moo tax bëri bi laa gën a favoriser kon lu ma lay wax rek boo xoolee sama carrière bu bëri bëri boo dégg dama naan waa Kamba foofu boo xeexul buñ la dugalul si kàmb yi boo xe boo reyantewul doo añ. doo añ doo reer lool ñu nekk si nekk si nekk si nekk si. ku su mel ni baxaw yar ñu ku su mel ni suñu mag ah, ñoom fóode ku su mel ni suñu mag bàcc seeraas yaroo ñu seeraas si teen ya di fay dem di fi jàng xeex tout le temps. mais xeex bi nga doon xeex boobu foofu ak xeex bii nga xeex ci làmb ji du benn. bokkul yàqamti la. ama problème bëgg a dem bëri boo gisee mu yombul na mun ko jàng ko gis ko mu yomb nag kii boo ko pakatee da nga koy daan wala boo ko sëkkatee da koy daan kon da nga def mu gën a yomb seew rek. mais gis ne aussi. Euh, songoo Gris Bordeaux benn yoon demoo bëri ji aussi benn yoon te xam nañu songkat nga. lan moo tax songoo Gris Bordeaux. kon lu ma la bëri bi lu nekk day am calcul tey bëri bi tey Gris Bordeaux lu bëri bëri lu may xaar kon lu ma la yor xam na ne damay song. Hmm. te Gris Bordeaux nit mënu ko pakate jot ko bu baax a baax boo ko pakatee jot ko mun na la fàq na def quatre appuis. ok comprendre lépp lépp dama doon sóoraale fàqam bi tamit comme ça ñun ñëpp lañu doon sóoraale. ma ñëw si xeex bi xeex bu gënoon nooy a xaar ma appeler ko. mais gis naa ne aussi euh, par rapport ak euh, jëmmu Gris Bordeaux ak présence am gis naa ne mënoo ko woon manipuler. waaw ah. maanaam yóbbu ko fu la neex. noo xam nga lan moo tax ñu fa jàppante wu hmm. boo xoolee première jàppal bu ñu jàppante dama ko dama daw manipuler mu ñëw ma dóor ko hypercule. Hmm. que jàppante wuñu lu bëri bañ jàppante tuuti la arbitre sifflé kon mënuñoo xam ndax manipuler nañu parce que jàppante wuñu. ñu ba ñuy njëkk a jàppante dafa ma saaj dafa tëru. dama ñëw du ko dóor si biir mu tëru ma jàpp sama tànk. Hmm. ñu taxaw tuuti jénn saal ba ñëwaatee benn jàppal lañ jàpp kon mënuñoo mënut a ñoo manipuler de maag moom ok merci beaucoup. macha allah ma ñëw ci Gris mais Gris gis nañ cette fois ci euh, bi ginnaaw bi nga entamé bagarre bi yow ak euh, Ama Balde. Mm-hmm. Euh, xam nañ yaa ko expérience ci xeex ëpp ko vécu ci xeex. ñu gis nga sànni ay coupé yu bari yu luppe nga nga xeex ak ñaar loxo te ñun d'habitude benn loxo nga daan ñaar loxo rarement nga ko doon xeexee. ñu gis ne aussi am nga pénalité ci biir combat bi. Hmm. ak nga Ama Baldé foo xamante ne ñëpp ne woon nañ jeex nañu. Hmm. lan moo tax Ama Baldé échappé ak lan moo tax say nga luppe ay coup de yu bari. yëkkatil micro bi. Euh, première action bi nga xam ne dama ko jël boobu dafa jege saako yi moo tax mu génn. ok te foofu fi ma jàppoon baax na. si. Euh, li ma fi ma jàppoon moom possibilité bi am fi ma jàpp moo gënoon baax moom jàppul. bu jàppee tamit jàppul à cent pour cent mais action bi bi mu koy entamé boobu génn na saako yi côté bagarre bi comme li ma rek euh, bagarre bi dama ko dama ci prudent parce que voilà dama ci dama ci dama ci prudent mm-hmm. moo tax ma doon benn loxo man boo xoolee kuy ma doon <coughs> maanaam daanu ma woon acharné wu di sànni ay coups aveugle mm-hmm. sama rek sànni dalu mm-hmm. mais loxo yi ma teel sa loxo micro bu baax. maanaam remise yi ma parce que dem naa ba benn instant xam naa ni sama adversaire dafay jël bisu bi yóbbu ko ci dafay parce que am na coup yu muy sànni yëpp ma contrer ko léegi day sóoraale saa yu jóg mën na daj ak man. ok parce boo xoo góoyee xoolee bi muy yàbbi projet dent bi daj ak man. waaw te coup dal la. waaw boo xoolee foofu dafa dafa def fu nante coup coup yi ma ko dóor yëpp coup boobu mooy coup fatal. bien sûr boo xam ne da ñëw ma dajeeg moom. Hmm. coup boobu da ko dal ba ma xam ba ma ba ma yëg ko sama. président bi wadd wéy. moo tax mu def lu nante. Hmm. def bi maa ko hmm. que président am la. xam def lu nante arbitre bi le temps que arbitre bi xool naan kan moo ko moo mu dem mais foofu rek lu ne mënoon na fa am. comprendre nga mais man dama dama xeex ak prudence. ak prudence. xam nga xeex prudence moo gën ci lépp mooy yaa ngi sóor ku lox si yegg fu sori. waaw yaa ngi benn loxo di sachet sa benn loxo di ci kaw. waaw mais mais ngir nee nga coppe tànku hmm. Ama Baldé ci combat bi. jëluma ko woon pour bëri ci parce que ça fait longtemps song ma. Hmm. song poids lourd yi nga gis yëpp kenn fi song tànk. Hmm. bariwul poids yi nga ñun ñii ñëpp pour nga gis ku ne coppe tànk c'est tout à fait un problème. ok parce que dañuy sóor. ak pois bi. Mhm. ak mobilité bi. Mhm. mais man combat bi joué naa ci ay attaque yoo xam ne tey ça fait longtemps jëlatuma tànk. bëriwuloo combat bi liggéey naa ci mais jëluma ko woon pour nekk ci tànk bi di liggéey. Mhm. dama ko jël rek pour ñu bëree ci kaw. pour contact am. un poids lourd qui cent quarante kilos. xool ko ci poids lourd yi nga xool kan moo ci jël tànk kenn songatu ci tànk. parce que yaa ngi sóor rëpp yaa ngi tóor mobilité question de mobile. mais man combat bi am naa ci malgré am naa poids bu ma ma gën a diis ci combat mais am naa un peu agilité. ok ñëw ma nag à 100 pour cent. mais maximum ñëw naa à 80 pour cent. ñëwuloo à 100 pour cent pourquoi c' était à cause de la préparation voilà. non maa ngi doon sóoraale xam nga combat boo xam ne dañ ko reporté reporté ko waat reporté ko waat plusieurs fois ci ay blessures ci ay claquages ci yooyu yooyu dama doon privilégié om combat bi pour bëri rek sans courbature cent yaram buy métti. sans gaañu parce que tamit. à une semaine ou à deux semaines du combat sportif bi dafay am day fragile. waaw waaw day fragile ci manque de récupération bu doy. ok xam nga déplacement yi. pour nga gaañu pour nga am ay rupture wala yooyu dafa yomb. ok moo tax combat bi dama ko dama ko doon ñiimantu. ko doon ñiimantu maanaam dernière semaine yi. <laughs> pour ñëw rek bëri ci jàmm parce que combat bu yàgg la combat boo xam ne dama dama man ni ma ci galéré noonu la ci adversaire bi galéré. Hmm. parce que la boo xam ne mënu ci am cent franc. Hmm. loolu ci ak victoire. Hmm. yàlla dimbali ko mu am ci yeneen combat yu mu jëm ma ne. combat wu deux ans nga ci topp. Mm. préparation da ngay dem ba nga xam ne reliquat ba ngay préparer combat bi. ok moo tax dañ ci sant yàlla nag. Mm. sant yàlla sant ñi nag ñi ñi épaulé woon jàppale ñi nga xam ne dañ ci dañ ci jàpp. ok ku mel ni le président Abbas Ndoye. ma maa ngi ciy ñëw léegi. mais dama bëgg ñu waxtaan ci technique bi. tuuti parce que ama moment bi nga ne bi nga bi nga këfee tànkam. ama moment bi Gris boo doonee coppet sa tànk waa Pikine jommi nañu. Mm, nga bëri ak moom mu def action ngeen génn ci biti. nañ ko yee nañ delluwaat ci biir géew bu foofu la la qu'est-ce que t'as senti lan nga yëg sa yaram ba ne giri nañ dellu ci géew non loolu tëru la lan moo tax mu beetam dafa tëru man dama doon ñëw di ko jëm si biir di ko jëm si biir mu tëru moom normalement foofu dafa ma waroon daanu parce que tëru bëriwul mbër mbër bu siy jénn mm-hmm. comprendre comprendre parce que xamal ma kon man tamit noonu laa ko def action bi. Mm-hmm. action bu may daw di ma song man tamit dama doon daw di ko dem di ko daw ba mu songee. Mm-hmm. dama daw bàyyi tànk bi daw plaqué dama ko doon dóor kii. dama doon dóor placage bi ñëw ma delloo ko. ok jël bu yomb la tabaare fekkee la ma bëree ko bëreeti ko. Mm-hmm. comprendre kon combat bi tey kon luñ lay wax rek képp ku ma xam xam ne Ama combat bi ñëwul sax 100 pour cent. yow it ñëwuloo à 100 pour cent ñëwuma 100 pour cent man wax naa préparation moo baaxul wala. ko sama interview comprendre dañuy ñëw rek bëre te yàlla tax dem ci seeti leneen comprendre comprendre moo tax kon 100 pour ñëw moo tax combat mun a demee noonu. ak ak ak conseil conseil yu bëri yeeg sa yaay sa famille comprendre li na war a def ak yooyu yëpp comprendre yaa ngi de kon protestant boobu muy wax dama sol protestant bu ëpp. Hmm. bu la ëpp waaw bu ma ëpp parce que dama ñëw ba si làmb bi. làmb dafa seere ñoo xam ne ñoo yoroon sama sumukaay ñoo yoroon sama lépp ñu bëree bëri dugg ñu ñu bëree bëri ci moo bëri ah, laa jël protège daaw moo war a protège daaw daan ba mu daanu def dama taxoon ne ah, arbitre sama sama protège ma si defuma si dara parce que na waaye sonal ma yenn sonal yi su ma déggee nga wax ci wàllu préparation dañoo defoon fii benn jàkkaarloo ci biti ñu am lu ñu la laaj nga jóg fecc ba fëgg sa dënn ne su ma nekkee fi ma war a nekk mbër yabu ma tey bu ma la déggaatee nga ñëw ne préparation bi dafa des est-ce que du xaw a paradoxe. non xamal problème bi imagine nay préparé di faju ok nay préparé di faju nay préparé di faju nay préparé di faju mm. koo xam ne fajuwul deful dara di préparé bokkul comprendre tey dañ ko jëlee suñu fugg xale nekk lu ñu war a nekk comprendre loolu waaye wax dëgg yàlla ñooy sant yàlla bu baax a baax ku su mel suñu ah, suñu ah, suñu père Aziz Ndiaye dinañ ci ñëwaat yow mm. tamit mbokk yi borom xam-xam yi ñu ngi ci plateau bi toog euh, buur géwél da ngay dañuy commencé ci papa Mbaye Ngoné Fall wàcc ci Fadam tout per Mbaye Ngoné ginnaaw bi ñu la nuyoo bu baax a baax dalal la ci la 2STV tey spécial plateau la nga gis Gris Bordeaux ngi toog Ama Baldé Balla Gaye ak Tapha Tine